Eh, kañ. maa ngi leen nuyu bu baax a baax. <laughs> waaw naka waa Mbour. waaw ñoo ngi fi sant yàlla alhamdulilah. waaw mais sëñ bi ñun day xibaar bii ñu yeewoo fi ci Ndakaaru doy na waar ñu ne wenn waajoo xam ni ëppal na fanweeri at daal maanaam dañu koo faat waaye dañoo dagg nag euh, awra daal di koy yóbbu ca Mbour. waaw xam nga xibaar bu am. depuis démb la sax. Ah. Ah, waaw depuis démb la mu amoon fi nga xam ne moo nekk Saly aérodrome. sali xam nga Saly aérodrome nag ñi xam ñi xam sali bu baax a man de xam naa ko moom. mooy waaw sooy soo jógee Dakar di dugg si mbuur waaw sa gauche sooy ñëw balaa ngay croisement Saly li féet sa càmmoñ yoonu. foofu dafa xaw moom la ñuy wax Saly waaw waaw waaw waaw waaw. waaw côté boobu mooy Saly aérodrome xam nga nag dafa bokk léegi ci commune bu Malicounda. waaw Malicounda waaw. ndax bi bi mu nekkee benn ku bi mu nekkee commune rurale Malicounda Saly bokkoon ci avant ñuy diri Saly foofu. def ko commune boppam. donc foofu la foofu la ñuy wax que sali aérodrome démb nag nit ñi mhm. euh, ci xibaar yi nga xam ne am nañ ko ci euh, biñ demee foofu li ñu xamal moo di ne benn xale bu góor boo xam ne euh, ay atam weesul daanaka fanweeri at moom la ñu mhm. daal gis ci suba gi mu ànd ak deret yu bare bare bare bari mhm. maanaam bopp bi dañ dañ ko toj waaye li ci gën a yéeme daal mooy dañoo yóbbu ay awra yi ci xibaar yi ñu am mooy awra yi dañ ko dagg yóbbu ko maanaam yóbbu ñu dara leneen ci moom du xaalis du leneen waaye daal awra yi la ñu yóbbu loolu nag ñu jaaxal trop ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox bi rawatina waa Mbuur ak ni nga xam ne noonu la demee ndax kat nit agressé ko xalaatoo ci moom lenn nga yóbbu ay awraam yóbbu lépp li nga xam ne te mu ne xale xale bu góor yéeme na trop trop moo tax ñu bare bari nag liñ ci xalaat mooy affaire sacrifice ak élection yi nga xam ne moo si xam nga élection su jub see nit ñi dañuy waa Diop ko amoon waa Diop waa Diop ban candidat moo war a soxla ay awra yu ñu dagg. ak buñ la ko indilee loo koy def. waa xam nga am amateur yi dañ doon wax ay ay ay puure dañ doon wax ay xale yu ndaw dañ doon wax ay tegtal comme comme xam ban candidat war a soxla ay awra. waaw yenn seetlu yi rek suñ la waxee dañ naan la def booy dugg pare ndax <laughs> ndax jar nañu coppati ay ay ay awra indil la ak buñ la ko indilee loo koy def dañ koy xooj sa wala loo koy def ah day na waar en tout cas xam naa ne daal xam naa ñi ko ko def moom wala ñi ko def en tout cas gendarmerie daal ubbi na ci enquête waaw te l' enquête bi l' enquête bi dina gën a leeral lan moo waral lan moo waral loolu léegi Diop ya waa ah. léegi waa waa ji moom seen koñ lañ ko ko defee wala moom fi ñu ko fekk mu daara noonu nit ñi xamuñ ko waaw parce que ki ñu wax moom xam na ko ba pare da mel na ni kon kooku ci koñ ba la dëkk parce que ki ñu hmm. jàkkaarloo moom parce que xale bi El la tudd te nga xam ne ah. moom la ñu waxal xale bu jigéen bi nga xam ne moo ko njëkk a gis waaw moom moo ñu wax ne xam na ko te El Hadj la tudd te dafa bi ñu doon yóbbu ay ndo maanaam ay doomam ñuy jàngi te suba teel googu la la ko la ko gis boobu nag boobu xam naa boobu nag deewagul boobu moo ngi sangoo deret ci la wax ak moom mu ne ko kan moo la def lii mu ne moom moom xamu ko. waaye nag euh, euh, biñ ko nemmi ko daal gis nañ ne ci awra yi la ñu yóbbu. ba mujj na ba mujj na faatu. non kon kon booy bi kon booy bi kaang reyuñu ko noonu soo a kii dañu dagg affaire yi noonu bàyyi ba ko muy. du sukuraan waaw waaw parce que oh. dañ ko agressé. une mort lente bopp bi dagg awra yi. Mm. parce que ki ñu ki ñu waxal muy xale bu jigéen bi moom bi doon yóbbu doomam. Mm. moom nee wax naa ak moom laaj ko mu El lan moo la def lii mu ne moom xamu ko. donc puisque xamu ko nag euh, te. ci eh, ñu jàpp rek ne kon xale bu jigéen bi xamoon na xamoon na xamoon na ki nga xam ne moom moo nekk euh, moom moo nekk ki ñu agressé. mais Mamadou euh, am so mhm. Mamadou. waaw mais xam nga awra moom bu ñu ko daggee ci nit yaakaar naa ne kooku li muy toogaat dundaat du yàgg. kon nor kon kon kon kon kon kon logique pour logique. ñi ko def ak diggante bi ko fay rombee. soriwul de. waa xam naa xam nga foofu xam nga soo xoolee xam nga sali sali aérodrome ak sali sta maanaam hôtel yi xam nga soréewul hmm. te bëri na ñoo xam ne dañuy dem ci hôtel yi di ñibbi seen kër yi heure yooyu xam nga mën nga jógee biir sali ci fajar gi wala genre yooyu di dugg sa traversé croisement sali pour ñibbi hmm. nekk ay bandi tax foofu euh, dafa nekk quartier boo xam ne dafa euh, Mansour xam na ko tabax yu bëree bëri ñoo ngi fa te egguñu hmm. yu bëree bëri en chantier la parce que du donc biñ ko lotiree nit ñi dëkk ci ñu bëri di ñoo tabax nag bàyyi noonu am na côté yoo xam ne sax da ngay muré rek bàyyi noonu dem donc mu nekk euh, loo xam ne niche la boo xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy bandi yi ak ñeneen ñi def ko di ñaawteef yi def fa def ko fa dafa yomb parce que dafa lëndëm te benn ne tabax yu bëri eggul ba pare te nit ñi bariwuñu wuñu foofu parce que ay toxu toxu ñi fa toxu si bare barewul noonu donc mhm. dafa ñaawteef dafa yomb dafa yomb jóge biir sali rek ñëw foofu def li ngay def delluwaat euh, euh, dem dem sa yoon donc mhm. wala nga euh, continuer nga continuer nga continuer jël àllu malikunde bi génn ji côté falox noonu madinatu salam daal di continuer dem dem kër songo dem kër songo waaw waaw côté yooyu day yomb waaw mhm. waaw donc xam nga xam nga yow àll boobu gis ni mu mel donc su fekkee ne loolu loolu laaj foofu am na ngeer ba léegi gàjj gaa nga fa dafa am gàjj ba léegi foofu léegi ah léegi ah. waaw euh, mais mais mais léegi enquêtes yi euh, gendarmerie xamoo xamoo ba léegi nii daal ne am nañu trace wala. waaw xam nga gendarmerie moom soo waxee ñu ne ñoo ngi sur la bonne trace affaire yaa ngi hmm. parce que ñoom duñ la wax mukk seen i seen i jamono yi tant lépp leerul ci ñoom. dëgg ñun nag dinañ def le tout pour jàkk pour pour am ci lu ñu leer peut-être balaa balaa mu yàgg mais nag xam nga gendarmerie il faut mu boucler lépp doo ko mën a doo ko mën a communiquer ci ci wàll wi. te xam nga ñoom it li ñuy wax rek la grande muette ñoom du ñu nangoo wax tant tant que ñi nga xam ne ñooy seen supérieur joxuñ leen aval pour ñoom pour ñoom ñu wax donc xam nag hmm. waa Mbour moom dina leen leer ndax taskati que yi koo ci gis fi toll yi moo ngi bàyyi bëtam ci loolu pour a xam affaire yi fan la ci toll d'accord d'accord kon Mamadou Diop merci ah, ñu laajee ñooñu dañ kaaraangi daal bëgg nañu ñu gën a yokk kaaraangi ñu ah, ko parce que wax nañu li fa am yëpp hmm. donc il faut ci jamono yi ñu nekk Euh, autorité yi ak ñi yor wàll wi il faut ñuy renforcer kaaraange gi gën a xoolaat mbir yi gën a saytuwaat ñuy dugg ko génn ndaxte station balnéaire ak hôtel yi dégg nga fi benn tubaab buñ fi rey buñ fi rey bu yàggul. waaw loolu sax semaine bi passé. waaw waaw yàggul. bi bi ñu rey bu yàggul donc yooyu dafa bari trop ci gox bi. kii moo nekk li ñu li ñu fësal rek ndax awra ñu dagg mais li ñu fiy rey ci ay nit ak yeneen ak yeneen li fiy am dafa bari trop ak drogue bi nga xam ne noonu lay circulé kon <coughs> war nañu renforcer li nga xam ne moom moo nekk lu jëm ci wàllu kaaraange gi ci euh, fi nga xam ne moo nekk Saly ak li ko wër rawatina ci biir département bu Mbour d'accord d'accord kon Mamadou merci beaucoup Diop mm-hmm. merci ah, merci beaucoup merci jaajëf Tall merci beaucoup merci kenn mës ta gis xam nga nag yéen ni aussi tamit alaaji nit ñi duñ ko wax rek waaye élection tam bu jege see léeg-léeg sàccum gone yi ah sàccum puune puune waaw rey yu waar yoo xam ne tamit ah réew mi tamit nag réew mi nañ ko sang ah waa baax na lii tam doy na waar nag de wax dëgg yàlla yow boo daal génne système u bi sàkkum type rek waaw barki rasulullahi parce que alaay alaay xanaa xamoo ndox yow kese sax wóoratu non eh ku koy def xële nga xam xoolal tul de la xam na ko sécurité bi fi réew mi dana de baax na tul de baax na tul de baax na te te alaaj képp ku sa fit wër ba ba ba ba ba gàtt fan rek ba ba ah ah gàtt fan rek naan man damaa am fit wala man guerrier laa gàtt fan rek guerrier waaw waaw man guerrier laa gàtt fan rek ñi ko alaaji ñi la dàq dawal scooter ñi ko mën lool dëru mhm. ca la ñuy dee mhm. ah, ku la dàqa woon ne man xoolal géej mënuluma dara damaa mën a fii féey ñaay yëg foo xam ne kenn du fa yegg mhm. ah. casque dër yi ci oto yi alaaji di naaw del xool fa ñuy mujje ñu la dàq lugg jaan ah jaana leen di mujje moo tax ay xoolal man guerrier laa del xool fa ngay mujjee <laughs> voilà yàlla yàlla dolli jàmm ci biir réew mi yàlla bu ñu dox ba dajeeg suñu noonu wu ñu mënal dara toroxal ñu suñu kanamu soxla yàlla la yàlla yàlla dëgg alaaji laaj ko balaa moo tëj alaaji léegi léegi yàlla na leen yàlla ñu yàlla na yàlla fi feebar lu bëggee yàlla di sama xarit ajaratu mami ma mi nga xam ne bëgg dara lu dul kurpeñ ci sama bëñ bii moom laa dendal. bëgg nga jàll. Mansour Diop mi bëgg ma jàll rek. ak maanaam bëgg sama gàttu fan laa dendal te moom sama xaritu maam la. man de kii ñu ne danoo dagg awraam wi te deewagul moo ma jaaxal alaay. Mm-hmm. waaw mais man man question bi ma am. waaw ci affaire boobu depuis jour boobu bi tas jeexee dama pose waat ay question ma ni. waaw. agresseur moo moo ko moo ko kii wala dañu ko dañu ko dañu ko affaire sacrifice la. Hmm, jaar na laa ñu ko agresseur la ñëw rek. Ah, wala dagg awra rek. fan ko fekk fu ñu ko fekk. nañ dem Mbour Papa Dieye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amath. waaw Papa kon euh, euh, ginnaaw bañ la nuyoo nag waa ji nga xam ne dañu ko agressé comme niñ def Mame Samb euh, ñu leen dañoo daggoon nag awraam yi kon ba léegi deewagul. non deewagul ñu confirmé ko ba léegi deewagul waaye nga baal ma nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi foofu yàlla ñu Mansour ak yi nga xam ne ñoom ñooy teewlu Zik ci waxtu bi ñu mhm. toll mhm. Euh, effectivement waa ji deewagul euh, waa ji euh, en fait liñ ci maanaam wax ji def wax yi da cee bari tellement que mais am na source yoo xam ne moom boo ci jëlee sa information dafay leer et puis que dem nañ ba gis ko fii gis nañ ne ni liñ ci wax ne dañu dagg aro bi yóbbu ko loolu it amul. loolu amul quoi. ah loolu moom loolu moom pas bépp ko bind. presse presse bi ñun de ah, moom tamit moom amul. presse ko bindee aussi amul. waaw wax li am rek ñu xam. Ah, waaw waaw moom moom loolu laay expliqué nii moom laa lay expliqué cest à dañ ko sectionné. dañ ko boo gisee ñu mun ko boo gisee ñu mun dañ ko sectionné. boo gisee ñu mun ko sectionné ci olof mooy la opéré. maanaam dañ ko dañ ko dagg dagg bi dagg bi waaw dañ ko dagg daal dañ ko may xam xar bu ma doon wax waaw ma ne dañ ko xar quoi waaye presse bi dañu ne papa alors papa Dieye papa Dieye waaw li nga wax ak li presse wax benn la dañ ne dañoo dagg awraam nan lañ ko daggee nag loolu lañ expliqué wul ak ci ban hauteur la non defal non non defal ndànk dama ne dama ne ah. dañ ne dañoo dagg sexam nan lañ ko daggee ñoom joxewuñ ci benn pression buñ ne diw dañ ko dagg dagg sexam ah. rek xel yëpp li muy joxe mooy xëj na dañ ko dagg yóbbu ko. Mhm. waaye dañ ne dañ ko dagg. yóbbu bi laa bëgg a expliqué noonu. c'est-à-dire que yóbbu bi bi effectivement yóbbu boobu. demewul demewul noonu. Ah, dama ne yow li nga wax ak li presse bi wax benn la dañoo dagg bàyyi fa. waaw. li nga wax ak li presse bi wax benn la. boo gisee ñu mën ko opérer. Mm-hmm. soo gisee ñu mën ko opérer ko opérer c'est am lu fa des. waaw dama ne yow li nga wax Mantoulaye déglu mooy expliquer la laa la wax. Papa Dieye du fi nekk di démentir ñoo xamante ni nii gars yi dañoo bind te li mu wax. li mu wax waaw non déglu ma Papa Dieye Papa Dieye. da ngay joxe li nga wax yëpp la. Pape Dieye li nga wax ak li ay l'observateur rek le quotidien le quotidien ak Vox Populi bind benn la. suñu confrère Mamadou Diop ñu jëloon ñu ñu dañ ne dañoo dagg sexam dañ ne dañoo dagg sexam yóbbu dëgg la wala dëgg non dañoo dagg sexam la ñu wax même bu ñu yóbbul am na doon dagg papa dama ne dañ dama ne xam nga adat ma woo pour ma leeral non mm-hmm. waaw da nga ma woo aussi pour ma wax la li ma gis. waaw mais da ngay ñëwal leeral mais xam nga démentir ak leeral du benn. mais Pape Dié passe directement à l'info Pape. mais Pape Dié parce que ci ñu ñu démentir ay donc yow comme confrère nga correspondant nga ak te directement de l'info. ñu nekk ci Mbour. Euh, je vous rappelle que ñu nekk ci eh. Mbour. man man je du collectif des journalistes maa ngi ne fu bokk yendu Pape. te attaque directement de l'information te attaque directement de l'information c'est mieux euh, Pape. Pape Hmm? man dama bëgg a xam rek pour mu leer Pape Dieng Pape Dieng Pape Dieng waxal li ngay wax Pape man dama bëgg a xam rek parce que man keroog vendredi nekkuma fi te li ñu wax mooy dañu dagg sexe même bu dul lépp lañ dagg dama bëgg nga wax ne laal nañ ko maanaam coppet nañ ci sexe ba ko dagg ak ak situation gain bi actuellement fan la nekk dagg nañ ci wala mintu où est le gars actuellement ak état de santé ak lu ay mbokam wax ak lan moo tax ñu dagg ko ndax de euh, ay agresseur la wala ndax dañ ko fekk fenn voilà foofu mooy info bi loolu mooy évolution hmm. d'information bon man de wax dëgg yàlla da ngeen ma woon. Mhm. ma leeral. Mhm. mais je vois non leeral bi leeral leeral gaañ waa ji anam fu mu nekk. Mhm. fan la waa ji nekk actuellement ñoo nekk. alors Papa Dieye fan la waa ji nekk actuellement. Papa Dieye. waa ji feebar ban clinique hôpital la nekk. waaw. mu ngi hôpital Grand Bour. Grand Bour. waaw fan fan la dëkk moom actuellement waa ji fan la dëkk. waa ji waa ji mu ngi dëkk Yer Saloum mu ngi dëkk Koungheul. Mhm. su ngeen demee gendarmerie loolu lañ leen di wax. Mhm. dañ ko agressé wala nekk wala. su ngeen demee sapeur loolu lañ leen di wax. agression lañ ko tuddee. waaw parce que tout simplement bopp bi xar na. door nañ ci xeer mu xar moom ci boppam moom nit ci waa ji ci moom moo wérul. parce que gen sapeur yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw jëlsi ko. Mhm. moom seen bopp moom moo moom ma dul expliqué. mais gars yi bi ñu ko laajee ñaata at nga am mu ne téeméeri at kee nga xam ne kii wérul parce que li ñu doon wax c'était pas cohérent des fois nag si am lucidité wax wax lu jub wax lu baax wax loo xam ne dañu yaakaar ne loolu dëgg la mais li ci ëpp buy wax day am incohérence ci li muy wax man du man li ma leen di wax yëpp lu ma lu ma xam lu ma gis la lu ma dund ak moom donc man du ma du ma wax lu ma xamul moom ci moom waa ji bi ko sappe bi dee jël si fekk na mu ngi ànd ak bon c'est vrai que deret bi songoon kii feesoon na ci yaram moom mais moom moo jóg sapeur bi ko di rencontré sapeur bi nga xam ne moom moo ko moom moo ko dugal ci biir euh, moo def intervention bi moom moo ko moom moo ko maanaam jàppale ba mu dugg ci biir mhm. waa ji moo jógal boppam ñu dimbali ko mu tëdd ci civière bi gaa yi yóbbu d'accord loolu mooy li nga xam ne moom mooy li am. d'accord Papa Dieye merci beaucoup beneen attaque bi mooy beneen attaque bi mooy. Euh, allo Papa Dieye tey ñu mën ko opérer. oui ñu demandé à des docteurs. oui allo. oui allez-y. waaw ñu ne boo gisee ñu mën ko opérer c'est parce li mu def dara moo tax ñu mu ko opérer ba nga xam ne dañ ko mën a defaraat peut-être que mën ko jox beneen kii mu mën a dundaat. d'accord ok merci beaucoup. docteur bi ma laaj. d'accord merci beaucoup Papa Dieye merci. boo bëggee ñu lay laaj à temps bu ñu lay woo da ngay jël sa téléphone ba pare da ngay da ngay da ngay da ngay suivre actualité. mënoo nekk mbuur nekk fa ab correspondant ñu lay woo duñ la jot ba pare bu gars yi joxe information nga leen di nga leen di dingat